maanaam ñëw soutenir UMS euh, euh, ndax dafa am foo xamante ni pour ñu yegg fa maanaam pour ñu am démocratie bu dëgër il faut que ñu am justice bu dëgër te pour ñu am justice bu dëgër il faut que justice boobu ay góor ak ay jigéen yu am valeur incarné ko te yàlla xam na ni am na ci biir justice bi comme ko dafa nekk ki njëkk a feeñ ki njëkk lii yëf yi dal ci kawam te dañu bëgg justice bi dëgër ñun bëgg démocratie bu dëgër looloo tax ñu ñëw pour soutenir UMS pour ñu mën a remporter combat boobu. waaw mooy li ma expliquer parce que nous voulons une justice très forte euh, une démocratie et pour une démocratie forte il faut qu'il y ait une justice forte et voilà quoi je pense que euh, euh y a des euh, et c'est sera incarné par des hommes et des femmes de valeur. Je sais qu'il y en a au sein de l'institution judiciaire. Et Télico en fait partie. Donc il faut, on a jugé nécessaire de venir soutenir l'UMS pour des juges, de, de, des juges intègres qui refusent de se compromettre.